billahi samil alim min iblis seytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursaliin sayidina wa mawlaana muhammadin almakiin wa ala alihi wa saxaabatihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yowmi ddin mbokki jullit yi ginnaaw buñ sante yàlla julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyu jullit ak mbokkum jullitam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi suñu gan ñu tedd yi ñu am muy ñoo xam ne ñu ñu safoo lañ ñu ñu yëg lañ ñu ñu yittewoo lañ ndax dañoo jóge ci ëtt yu tedd yu sell yu màgg yoo xam ne ñoo ko ëttub sëñ Tuubaa bii ñu nekk dañuy benn nekkoon ci toolu lislaam bi di bay kon nag buñ demee ba war a santaane am mbay ñoom ñu ñëw di ci bay seen waar loola ñu ngi leen ci sant bu baax a baax te di leen ci ndokkeel di ñaan it lépp lu ci bërëm dële yàlla bu leen ci kenn ëppale di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Babacar Njegéen ñi ak sëriñ Ousmane Mbay xam ne ñoom lislaamaleen leen a jóg defarug mbokk moo leen tax a jóg yéwénoo ak xam lan mooy dëgg-dëgg yi taarixu yoonu murit rawatina sëriñ bi ñu yaakaar kon bu ñëwee loolu dañuy sawar lool ci dalal leen di leen jot li sëriñ Abdoulahi Mbakke xalifa Mamor Jaara ci kaw suuf ak njabootuk Mamor Jaara gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen tatagal di rafetlu seen jotaay bi te xam ne mosuñoo am lenn loo xam ne moo ñu gën a rëy ci lii waaw jotaay bu ne am nañ ko waaye jotaay bii nga xam ne dañ koo séq ak suñu nawlay lislaam mosuñoo am benn jotaay boo xam ne moo moo ëpp bi ba tax na maa ngi feggoog euh, kilifa jotaay bi di sëriñ daam abdourahman mbakke moom sëriñ saam asuloo moom seex astawaalo mamor jaara feggoog ñaari rakkam yi moom itam di sëriñ abdou xaadir mbakke ak sërif onseyne Euh, ak Serigne Mamor Mbacke mi nga xam ne sama rakk la ñoo bokk baay ak Serigne Salihu Mbacke ñoo ñoo leen dalal xam naa dama doon nuyoo rek waaye Serigne Mamor danañ ko bàyyi mook sëriñ Salihu ñu ndax loo mel noonu ñoom lañ ko dénk bu ko defee ñu gën a yaatal ci li ngeen li ngeen di a yittewoo. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim eh, mbokk jullit di mbokki taalib yi bàyyi xel. seen télévision Prestige ñu ngi leen di nuyu baax ak di leen siyaar baax eh, di leen balaax ak di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di jëkk di yëkkati kàddu gi nag ci ndigal suñu kilifa Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mi nga xam ne moo nekk suñu waajur ci barab bii di sëriñ Abdoulahi Mbacké moom sëriñ Modou Mahmoud mi xalifa Mamour Diarra borom Sam ci kàddam la ñuy yëkkati ak ci kàddu sëriñ Saliou Mbacké rakkam ak njaboot gi fi nekk ñëpp sëriñ Daam mi nga xam ne mooy ni ko suñu tuddee léegi mooy kilifa jotaay bi e, ci tatagal ak dalal ahlan wa sahlan suñu mbokk yu baax yi nga xam ne e, ñoo bokk tool bi ñoo bokk waar wi yëngu mi lislaam ñëwoon tey ngir yaatal xam ak gëstu indi leen ci barab bi ak yaakaar tey ñu ñëw fi sëriñ bi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci turu sëriñ bi ak turu njabootu maam borom saam gépp sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare xam nañ sa wàccu xam nañ sa maam baax wàccuwaay bi am ci eh, liggéey bi mu liggéey lislaam ci cees ak fudu Thiès ñu ngi lay siyaare baax di siyaare sëñ Ousmane Bay eh, comme ni ko sëñ Abdou Khadir waxee rek daanaka daa baax te yéen waaye mënoon naa àggale li ngeen gëstu lépp ci barab bi ma mënoon mënoon ko àggale waaye seenu yaatal nag ak seenu bëgg lu baax moo tax ngeen boole ci barab bii ngir màggal gi gëstu yéen i gëstu diggante Serigne Touba ak ak Serigne bokk yi ngeen ñëw ci barab bi waaye dafa mel ne juumu leen suñu borom subhanahu wa taala niita na leen barab boo xam ne bokk na ci barab yoo xam ne jàpp na ne kii gëstu sëriñ bi wala lu aju sëriñ bi wala lu jëm sax ci lislaam war ngaa njëkke barab boobu waroo ko mujje boo ko jiitu waroo ko mujje mu ñu mbàkke ñoo ngeen ci pàkk bu làpp pàkk bu màgg pàkk bu bari xam-xam waaye pàkk bu làmboog ay ngërëm yàlla ak i njariñ barab bii nag taarix li lañu mën a tënk ci gàtt la bala ñu ci borom kër gi eh, li waral mbàkke gi maam Maharam Mbakke mi nga xam ne mooy xadd naanu Mbakke Mbakke yi ñuy wax ne moo ko sanc Maharam moo ko sanc nekkoon fi daan fi dundal lislaam daan fi ak di jàngale laata moo del laata moo dem Jolof mujj na bi mu fi nekkee fi jëm Jolof nat dafa bàyyi doom ji ñuy wax Ahmadu Ahmadu Fatimata Mbakke moom la fi bàyyi ginnaaw bi dafa boobu dafa yóbbaale taawam bi nga xam ne bi ñu sàkkoo li fi nekkoon sàkko mu mu sàkk sàkk mu mu fi mu toog fi Ibrahima Ñang maxaram daa wax daa waxoon ne mooy sama loxo ndijoor faaw ko ci la fa bàyyee Ahmadou Farimata mi nga xam ne moo tax ma ci moom ginnaawam mi nga xam ne mooy rakkam tamit nekkoon nekkoon na fi ab diir naka jekk nag loolu ko maaxaram sancee woon mooy lislaam ak ak jàngale ak dund dundeelu lew ak liggéey naka jekk barab mu noonu lay doxee ba ba léegi nii naka noonu la fi la fi nekk ba maam maam maam Balla Isa mi nga xam ne mooy maami sëriñ bi dañuy wax ne mooy caatu maaxaram moom ñëw nekk fi nekkoon na fi mooy maam Balla nekkoon na fi fii ci Mbàkke moom it daan fi jàng ak di fi jàngale alxuraan ak di fi dundal lislaam ak di sàmm lépp loo xam ne bàyyam bàyyi woon na ko fi ak mbokk yi lislaam yi nekk na fi ab diir di bàyyi di sanc ngay nekk noonu doomam la nekkoon doomam maam Abdul la nekkoon ba xew-xewu lislaam yi yafa jaar ba ni mu fi wujjee boromam ak suñu ma suñu morom kon nag barab la boo xam ne njabootu Mbàkke nag jekk ñoo ko masa moom te lañ lañ ko sancowoon nag mooy jàngale alxuraan ak dundal lislaam loolu mooy taarix barab bi boo gisee sëñ sëñ sëñ Mor Anta Sali mi ne mooy mooy mooy wajurul sëñ sëñ mag bi ñu ko daan wax sëñ Mbàkke Mor Anta Sali la ko waraloon mooy Mbàkke gi mu ne nekkoon na fi nekkoon na fi dox nat dox dox nat ba yàlla def nat Seyxul Xadim radiyallahu anhu nat moom fii la feeñee jamono Mbàkke gi la juddoo moom magam ja Seyxul euh, borom borom Saam 1953 1954 waaw bu ci mën am taarix bi ci gën a rek waaye Mbàkke gi dal ci barab bii fii mu feeñee jamono ak kër gi mutut mutut mutut mutut un kilomètre mu ngi fii suñ ginaaw ci bàpp gi mooy barab bi suñ jilloon junj léegi naan nekkoon na fu ñu daan caaxaane Cheikh Cheikh Mamadou Muntaxa ñaan dox ci ban soppi ko barab ba ngi def ko Sëñ Tuubaa ci barab boo ñu tudde ko bàpp ga fa la feeñee jamono ma magam ñu tedd ji Sëñ Mor Jaara borom saam ñu eh, wax nañ ne eh, Sëñ Mor Anta Sali Samba Tukulóor nga xam ne daana jàng moom di xar ko jàngal moo ko ko maa ngi la ñaan boo amee doom taaw ba boo ko tuddee rasulullah sallallahu alayhi wasallam noppi ka ci topp na mu ko tuddee borom borom saam feeñoo na mu tuddee ko yonent sallallahu alayhi wasallam Seexul Xadim mu barab bii lañ feeñ barab barab bii ci Mbàkke fi lañ feeñ seenu seenu ndaw tamit li ci ëpp fi lañ ko defee seenu njëlbeen benn di jàpp fi lañ ko defee moo diggante eh, suñu Mor Anta Sali ak soxna jaare bi muy seen wajur waaye ak eh, seen nijaay sëñ Musobe li ci ëpp ci seen ndaw ci barab bii lañ ko defee muy diggante Mbàkke gi boo dégg ñaan Mbàkke xewar nat ak Mbàkke dimbu wala Mbàkke nangam loolu ay ay ay Mbàkke yëpp benn garab la woon fii wax nañ ne bi ko borom sàmm sañ ci xewar moo fi ne xewar moo ne ko ci digg kër gi ñu koy kinaaya Mbàkke xewar boo demee fële ci Mbàkke dimb fële tamit suñu yi dëkk tamit ba ak garab fa nekkoon ñaan Mbàkke baar yi yëpp ay gar ay xeeti ay xeeti garab la woon yoo xam ne moo waral garab gi waaye genn Mbàkke gi la woon genn tool bi la woon genn daara ji la woon mboso bee ngi ni fii suñu diggante moom moo it moto 800 mètres euh, fa la Seexul Xaddim teelifee Masaalikul Jinaan wala sax fa la ko tàmbalee waaw ci ci ci ndawam li jiitu muy dem ci géej gi moom diggante kër gi benn la yëpp benn benn benn la sëñ boso bi nekkoon na fii sëñ Mamour Jaar nekk fii nekk ci la sëriñ bi feeña jamono magam ñu baax ci nu sëriñ Tuubaa fi xam ne fonk na ko lool fii la ko njëkk màggalee woote woote ko fi ci Mbàkke Bawol ginnaaw bi nag la fi la fi bàyyi ko ay taarix yu bari bari xam ne ay jaarwaay yoo xam ne jaa jaar na ko ngir doon liggéeyal borom moo tax mu jóge fi mel ne Daaru Salaam ba ni mu demee Daaru Manaan dem Touba waaye casaan casaanu yoonu murid lépp nag ci Mbàkke gi la ci Mbàkke Bool gi la noonu lay doxee nag doxee doxee nag ba ay jimi jamono eh, bi nga xam ne seen wajur nopp seen wajur wujj na boromam sëriñ bi sëriñ bi nekk fële ci deqalee ci Mbàkke Kajoor mm. si la sëñ Mor Anta Sali sëñ sëñ Mboso bi sàkku sëñ Mamoor Jaara mu ñibbisi mu ñibbisi ñu ànd ñu jógee naawel ñëw ñibbi si fii ñu Mbàkke boobu fekk na dëkk bi wax na ne gentoon na lu yàgg te taal li ñu wax boo xam ne bari baraana lu fi ñàkk amoon yoo xam ne eh, ñu bari dañoo taxu woon mu raaf ci gàttal daal lañ ko moo tuddee ginnaaw bi la ko suñu Maam ñëw sanc nat ci ndigalu waajurum mi nga xam ne moom la taqaloon nekkoon sëriñam daan ko jàngal la ñoo sanc fii nat na sëriñ bi nekk diir nekk Mbàkke Kajoor ak diggante nekk nekk deqale ginnaaw bi waajurum ne elewe nat mu nekk ci watu la Lat Joor sëriñ bi daan ne fi yabal ay nit ñu fi ñëw mu leen di jàngal fii fii kër gi daara la woon borom saam fu mës a nekk daara la waaye bi mu ko sancee mën nañu wax ne ñi njëkk jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam fii leen jàngalee ci kër gi waaw bi wax nañ ne sax mboso bi fee ci mboso bi la wàcc waaye suñ suñ bi moo ko wax mu ñëw mu ñëw mu ñëw fii bu la ko def difi jàng ak difi jàngale difi jàngale lislam bara ñu baree bari bari sax ñoo xam ne fee jàngi alxuraan na dañu naan wax ne ci taarix ne réew mi lu waay man man alxuraan boo ko mënee ba wóolu ko li fekk di moom ci borom saam ba mu la ba mu defalaat tawxeex maanaam maanaam mos na maanaam signature boo xam ne wér na dañu jàpp ne sa alxuraan des na baraan na ci ñoo xam ne ba noppi alxuraan ba wéral ko ñu jàpp ñu jàpp ne soog na mën alxuraan loolu mën loolu mën nañu tudd suñu aafiya mbakke rak rak rakkam moo ko maam si anta suñu aafiya juróom benn fukki guddi yoo xam ne borom sam diglu na ko kaamil alxuraan koo digluwaat loolu sax moo ko yóbbeewaat sax mu jàng fi ay téere waaye alxuraan rek moo ko fi indi woon fii fii fii ci barab bi ak ñeneen ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu Serigne Moussa ko wax na ne eh, bi nga xamee ne sëñ Moussa bi sàkku na borom saam ñëw fii ak ak ak ak leen ci bokkam ya xam naa sëñ sëñ Cheikh lay doon ndax moo feeñ ci waj wa loolu misaal na ca yooyu at la alhaaji Cheikh Bousso dalee Saalum ñëw ba wal di buusu ànd ak Serigne Mbakke ñu jaari Mbakke ngir sàkk alxuraan ji ànd ak barke a Cheikh Mamadou Jaari moo leen tooral moo leen tooral booba ku fi kàng fure moo lay seetal waaw ah, booba sëñ Bousso sëñ sëñ Cheikh muy taawu sëñ Bousso bi ak sëñ Mbakke Bousso biñu jógee naawel bi ñëwee fii ci Mbosobe seen seen bàyyi da leen yebal sëñ Mor Diarra ñu ñoom Mor Diarra ñëw fii digluwaat seen alxuraan taxawaat xooluwaat ko fi seen Aliou tolluwaat ba noppi boole si ne tàmbali seen jàng seen jàng seen jàng xam-xam loolu moo nekkoon taarix barab bi naka jekk la la la la la waral nag suñ mbàkke yi bari koy dégg jàppal ne suñ suñ mbàkke moo dégg rek jàppal ne mbàkke gi tax nekk fi nekkoon ay turam Mamour Diarra bari na danañ ko wax suñ saam ndax saam gi mu sancoon danañ ko wax magi mag ndax mag gi magam sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa di magi ñëpp waaye nag sëriñ mbàkke nag li ko waral mooy mbàkke gi mu nekkoon am na tur turam ci gën a siiw ñaan sëñ Mbàkke bokk na ci sëñ Mbàkke Fallum Cheikh Ibra ñu ko tuddee bokk na ci sëñ Mbàkke moom si nun soi bokk na ci sëñ Mbàkke bokk na ci sëñ Mbàkke moom moom sëñ Abdourahmane Lo nekk noonu ay sëñ Mbàkke bari yoo xam ne ci yoonu murit moom leen tuddee te la ko waraloon mooy nekk gi mu nekkoon Mbàkke dañ daa ba ca Mbàkke ma borom sam daan bind ay téere di ko takkal njaboot gi mooy njaboot njaboot gi maanaam mooy ki fi ku daal lañ ko jox ngir ñu mën a mucc nee naa benn bi sëñ Mbàkke Fall jóge fi dem Paalin dem seet Cheikh Ibra ba mu àggee maam Cheikh gis mu takk lu mel laaj ko ne ko lii lii nga takk xanaa sa sëriñ sa sëriñ Balla ko jox mu ne ko mu ne ko lii kon loolu taari moo waral ñu Mbàkke gi mu nekkoon moo tax ñu ko sëñ Mbàkke kon daal ci bi ci gàttal Mbàkke gii daal mooy kër borom saam mooy kër sëriñ Tuubaa waaw mooy mooy mooy kër borom saam mooy kër Sëriñ Tuubaa mooy liggéey boo xam ne ci liggéey na ko fi ba jóge fi sanc yenn barab yu du jeex bi fi jógee nag Sëriñ Mor Soxna Mbakke moo njëkk a nekk fi nekkoon daan wéere liggéey bi xam ne dinaa war comme comme nekkal taawam nekkal fi ka ci topp day nekk mesere mesere mi ngi ci diggante Touba ak Daaru Moxti waaw waaye taaw bi fi laan nekk bi mu fi jógee tamit Sëriñ Cheikh Sawala Sëriñ Mor Bousso nekk fi ginnaawam Sëriñ Cheikh Sawala mooy maami maami ñu suñu daam ñi ginnaaw bi fi jógee nag la fi Sëriñ Cheikh Atta nekk si ginnaaw bi Bito Mbàkke ab sëtam la moo ko njëkk wuti sëtam eh, ginnaaw bi sëñ Bassaam ginnaaw bi sëñ Abdu yàlla buur Jaara sëñ Mudu Mahmoud Mamour Jaara ko yaayam soxna Maram Ba dooñu maama ndëri bala ñooram mu ma ba jox ba ñu bokk ndek bàyyi waaw moom ay mbokkam ñi ci réew mépp yaatu nañu fi fa dem fekk leen fa naka jekk lan leen bàyyi woon tamit si la nekkoon mooy yar ak jàngale ak dundal diine ak dundal islam loolu daal ci gàttal mooy taarixu barab bi moom la ñu mën a tënk ci gàtt yi kàddu ñu ngi sant bu baax di jégalu baax lu ci lu ci dëng rek ñun la waaye sëñ bi xam na ba gën a ma gën a mataloon waaw aleykum salaam rahmatullah waaw li ci dolli tuuti ci seere rek mooy suñu kilifa googu di suñu maam di Sidi Hasi Malick bi mu déggee borom saam génn àdduna la ne moom day ñi maaseeloon amul kum ci yamal ndax liy firnde ji rek ki nga xam ne mooy mufti yoon wi bu yamoon ci moom rek doy na sëkk muy sëñ Mbàkke Buso comme ni Serigne Mamoor wax ci seedeem ne képp koo xamante ni ja euh, mën nga alxuraan jàpp nga ne bu la ko bu ko bu la ko wattulut bu ko wattulut seere la ko ba mu wóor la da ngay jàpp ne des na loolu si Hadji Malick doon seere ci moom ngir xam-xam bu mu am ak alxuraan ju ju ju ko yàlla moom la ju wóor wóor joo xam ne moom képp ku masaan jox lijaasa moom lijaasa boobu lu leer naññ lay doon lu leer naññ lay doon loolu tam nag moom ñu xam ne daal borom atti bi daal euh, dara ñoru koon lu dul lu dul yàlla dara ñoru ko woon lu dara ñoru ko lu dul jàmm yàlla dara ñoru ko lu dul liggéeyal Sëñ Tuubaa kon nag euh, xeewal yooyu ak pay yooyu seen seen jumtuwaay wii di liggéey yàlla bu leen ci kenn ëppale waaw RTS TV gi yàlla bu leen ci kenn ëppale ak yéen ñi jéggi seeni tànk ba ñëw ba fii tam yàlla bu leen ci kenn ëppale sant nañ bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa ni moom li arab naan isa tammal amru bada naqsuhu ndeysaan te gis nañ ni place bi fees na dell mat na lépp ci alquran ak sunna ak mbindum mam borom Tuuba xol yi sedd na macha allahu taala mën naa ni ka annana xadara rasulallahi mën naa ni ka an naa naa xadara cheikh cheikh Ahmadou Bamba ndax segam sunu kilifa ga sëriñ cheikh dafa wax ni yonent bi ku ko tàntal tànt nu tànt ba toll moo xam néew na mu teew fa ndax kam ka chamsu fii kabidi samaa'i wa daw uha yaxshal bilaad mashariqan wa maghariba moo tax ma ne cheikhul xadim teew na ci jotaay bi sëriñ bi ñu lay feddalil suñu mbégte nag kontaan loolu fa tabaarakallaahu xam nga sëñ kër mii macha allahu taala dafa ñàkk kiñaan léegi rek maa ngi ko koy wax bu ñu toogee ma ne ko sa maam li ko sëriñ tuubaa seedeel du kese kese ma ne ko cër bu toll noonu bu ko sa maam amee Cheikhul Khadim ak fi mu toll ci yàlla seedeel ko ko ba Cheikh Ibrahima Fall taxaw ni ko jullee ma ma ne ko loolu sas bu rëy la ma ne ko nag am nga cër bu mat cër fa tabaarakallaahu ñu am mbégte goo xam ne nag yàlla na ko sëriñ Touba kontaan. parce que lii dafa neex sëriñ bi yaakaar naa boo xoolee sax programme gàmm gi lépp ci xoolaat sensibiliser waat kër diine yi mu nekk benn damay faral di wax nañu dépassé nañu diggante murit ak tijaan ak xaadir ndax ba cheikhul xadim bindee wa kullu wirdin yuridil murida li xadratillaahi rek doyoon na foo mënti jokk nag sala coow lu jeex maa ngi koy wax léegi sànq ma ni sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke liggéeyam dafa dépassé ab murit ma ni taxawaayu islam la taxaw ndax ku gis solidarité bi muy def ruru état mu nangu ko ci loxo état di ko liggéey kooku nañ koy ñaanal yàlla na fi yàgg te wér dama bëgg nag ñu ñëpp ni yàlla na fi yàgg ànd ak wér sañ Babacar bu ko defee kontaan nañu loolu yàlla na yàlla kontaan yàlla na yonent bi kontaan